Basumo Basumo Mbare d'abord je vous reviens parce que là depuis 5 heures du matin nous sommes sur un cas c'est le cas du président Ousmane Sonko depuis le vendredi comme on le dit souvent il y a une presse utopique fausse délinquante une presse qui est abreuvée par les politiques. Cette presse de merde-là, c'est cette presse-là qui joue le chaud et le froid. Il y a eu des mouvements depuis vendredi. Allez demander à la famille de Sonko. Chaque nuit, la gendarmerie nationale fait des mouvements dans le quartier Cité Kergourgui. Et maintenant, on vient de découvrir réellement qu'est-ce qui se passe. Malgré la grève de la faim imposée par l'État, c'est des grèves de la faim imposées par l'État. Cheikh Bara on vous dit que grève de la faim ma bagne. daa deux jours yo xamné dañ ko bañ jox mu lek. Momit it mu taxaw fi mu taxaw dem grève de la faim Cheikh Bara ñom ñoko provoquer la grève de la faim bi comme niñ def Ousmane Sonko li def Cheikh Bara. Anibal la même chose lañ ko def dem ñom dinañ ko wax Buñu ñu ci si Cheikh Bara nag la ma leen waxoon laa leen waxaat dossier médical ñett dum ci dugg mais Cheikh Bara gars yi dugg na coma nay leer rek il est dans le coma tint lay doxe il est dans le coma xam nga rek man moom ak fu ñu mën dugg yëpp dañ fay dugg xam nga man kaaw Cheikh Bara si man ay kaf la moom it dafa dëgër boobu ñu bàyyi ko. demal ñibbi ay liberté provisoire moom it muy dugg si combat nan demul ak day dem Cheikh Bara yow it bi ñu la bàyyee bële passé waroon nga dem yaa provoqué procureur yow it déedéet ñu la waroon nga dem gis nga combat bi tam am na fu muy toll mu ñu tëjandoo ñëpp c'est impossible su ma gisee saa yéen ñëpp ñenn ñi naan ana leader passif ana leader passif mais déedéet bu ñu tëjee ñëpp kuy xeexate yéen dèjà rek tëjaguñ ñëpp problème am na Sonko tey mu ngi nii tey deux heures ki ko doon kii muy julli léegi tok julli bi tay defuko ndax munu ko voilà momi it déquince na kérok nee ngeen amna na mbàkke bu dem ba pour guiss Cheikh bar man luma ma si metti ah, yéen Sénégal xol yeen gaay on vous donne on signale à gauche l'État signale à gauche pour passer à droite ah Cheikh bar yóbbu hôpital des fois wax ji fitam tam foog wax deug muy jub Cheikh Bara yóbbu ko hôpital bàyyi leen presse bi gis ngeen presse bi ni ñu leen manipuler xëy na leen ah, il l'ont fait exprès eh, kii Sonko la demoon waxal pour li mettre les conditions du marabout point final. te yéen ñëpp yëg ngeen li ñu wax no kon du ma ko répété wat ay eh, da ngay noppi rek da ngay dem ak demoo yooyu yëpp wax nañ ci mais ñoom la rek Sonko lim leen tontu dégg ngeen ko point mais yéen waa APR di ñu ñëw.

diggante boobu plus de dix millions non chiffres yi waroon naa yore sama kay ma bind ko dix millions waxuma leen sénégalais de dix millions cent et quelque laa la wax dix millions cent et quelque waxuma sénégalais nañ leer yuy wuyoo bàyyi nañ leer de dix millions sénégalais laa leen di astafra dix millions doomi adama yo xam ay jullit lañ ak yi wuyo wuyoo baay baay Barxam Ñas nee naa leen diggante boobu biir Nigéria il a 24 millions de disciples Cheikh may dama ne woon mukk du wax ci serigne si mais mon frère Seydou du Niger on a beaucoup discuté tu m'avais demandé de passer le message que vous avez envoyé une délégation voir Cheikh Mayo pour dire à Macky Sall non fak ñi clair ñun ñëpp maman fak ñi clair fak mu jub yenn yi nekkul waxu suuf mën nañ ko wax ci kaw moo tax Cheikh Mayo xanaa doo leen ne yéen yéen ñi Macky Sall ñëw war def tour pour ngeen ñaanal ko mu jël suñuy doom dem rey leen dëgg rek neex yàlla day dem ray suñuy da leen dem faire da leen di li sacrifice la parce que le peuple Niger ce c'est clair soldat bu osé dugg vous vous considérer comme un ennemi la guerre c'est comme à la guerre Macky Sall il est prêt à tout même la guerre amul Même ko josé rek bañ sur le plan international démarrer, na moom mu day toog il est prêt à tout même si soldat yi départ ñu dóor avion Sénégal sax bal boy idée. non ben dóor soldat avion Sénégal comme nous, les États-Unis fonds, xaar ba Sénégal war ñëw ñu xam ne dañ leen di fay ñoom ñoo rey jàmbaar yi juñ ko Saddam non c' était le système qui avait assassiné les 92 jàmbaar là les 91 jàmbaar du moins c' était le système qui les avait assassinés pas Saddam Hussein ñoom ñoo leen rey Abdou Diouf xam na li yëpp ngi fi fii adduna lu mu yàgg yàgg yàgg dinañu déclassifier yenn documents yi incha allah Macky nag yónnee nañ ko ay ndaw yu jógee ba Niger. ci Cheikh Mahi Cheikh Mahi nee ngeen jeune Ousmane Sonko ñoo leen di saaga ñes parce que tam dafa am combat bi fu muy toll dafa am ñuy jaxase wax ji dafa am ñuy jaxase wax ji le chiffre deux boobu ma leen di tagal foog ñu si ñëwaat Cheikh Mahi Niass bi war def intervention ak Cheikh Mahi Niass bi tok ci jalba du ben say yi dama koy jema décortiquer mais man fima amé degré compréhension ak nit ni fiñu bok bokk ma fa malgré murit la kooku mom mom du jeun recul pas là-dessus xalif général bi kan la représenter bayam wala mamam placeu kenen la tok Cheikh Mahi boko fa fekkee do ko ne Cheikh Mahi mam Baye nga kay wax seigne Mountakha foko ko fumu tok wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Mambay si Sy boo ko fekkee fële mais buñu bëggé wax ci politique ñom lañuy andi ñom séti wax ak ñom direct parce que ñu nak ñom la mais buñu ñu tok ci place Khalife bi ñun ñoo ci yam billahi gis nga der bu ngeen ñun tay buñu ñewon tay Sénégal man murit la damay dem Touba graw ñun tay buñu ñewon Sénégal bu leen sonu ay murit lañ tay bu dëkk bi tay takko ñu nar a taal tey suñu kër yoy ñun ñay financer wat mais jaxase bi nak Macky Sall gagné na ba paré ndax sëriñ sëpp bloc waxoon naa leen ko ça fait un an ndekete tey la ma ko benn booy envoyé mars deux mille vingt deux laa defoon benn laaj ne tuf tous sauf Sonko ndekete mars deux mille vingt deux laa ko defoon tous sauf Sonko boobu <laughs> benn booy moo ma ko envoyé tey ne ma grand xoolal sa vidéo bi ma ma déglu ma ne ko mu man yii fàtte woon naa ko parce que bii nii bi mu ko waxee patriote yëpp ma saaga si ma Facebook bi dem ba ñaata deux cent et quelque moo tax léegi sama deux cent yooyu rek ay samay gor ñoom rek laa téye sama page je m'en fous du keneen ku ñu accepté boo yàlla jël. Sonko tey dafa tëdd julli jabaram jooy xaccit soxna si foog nga muñ ndax keroog maa ngi ko doon codé sénégalais yi bu ñëpp defoon ni man léegi xeex bi jeex ba si sa njaboot bu ñu nangul wàcc sur le terrain. bu dee da nga luwel kër yow mi nekk kaw fexal bañu sibiti mba si biti seen maam fayal leen bu yàggee dinañ wacc xex ñu noq ci kasso bi comme doomu ñëpp fi kenn gënu fi kenn combat lañ nekk yow man fa la tollu do mo dom dem leen seen mam musée rek man man waangi ci guerre awma ma temps xam naa ne temps yi ma mere combat bi je ne vous le cache pas y a plus d'affaires de famille y a plus d'affaires de parents je suis seul dans mon combat parce que dama ko porter seul Sénégal nag tey ma waxaat leen leneen loo xam ne foog ngeen yëg ko léegi léegi léegi balaa ñu naan Casamance gaa yi ñu deewoo Casamance gaa yi ñu xeexoo armée gambienne dafa bëgg a jëlaat ay responsabilités mu jël dëkkam. Bissau Guinée seen armée bëgg nañ jël seen responsabilité jël seen dëkk Macky Sall dugalaat na juluulu nee naa la mu ngi dugal militaire yi juluulu xaw ma ngi xew mu ngi dugal militaire yëpp Casamance maa ngi wax rek maa ngi wax rek mu ngi dugal militaire yi Casamance. te fàtte ne moom mu ngi bëgg a dugg guerre bo xam ne yéen neutri, ça va vous coûter très très très très très cher extrêmement cher yéen neutri, ça va vous coûter cher xam naa lu may wax ça va vous coûter cher maa ngi wax rek Macky Sall guerre bi ñëpp bëgg nañ taxaw mais moo Macron bayam même Ouattara bëgg na ruux mais Macky Sall ak Macron bayam pour Macky yóbbu leen ba 2027, mille vingt Macky guerre guerre bi c'est que Macky en grosso modo en grosso modo guerre la si Macky Sall leen damay guerre bu ñëpp guerre amna la constitution fofu tam fokk ñu ñëw ci dëgg constitution La guerre président ba day tok ba mëna tok ba stabilité am ma jox exemple guerre Vietnam fekk président américain bu Truman moom rek a mos def ñetti mandat États-Unis dafa demoon ba Lafeñ mais def na trois mandats moom moo door bomb yi bombe atomique Hiroshima ak Nagasaki Truman la tudd mooy président américain bi 1966 Truman la tudd kooku rek a def ñetti mandat États-Unis parce que lan guerre moo ko ko may ci constitution la nekkoon xam nga tam nit ñi boo leen di wax foog nga wax leen dëgg dëgg dafa wóor mais ñu ne Macky Sall ñoo ne déclaré na guerre rek ne constitution bi da koy mayaat mu toog ba guerre bi jeex rek ñun ñëpp commencé yuuxu tàkk déedéet militaires yi jël responsabilité wala ñu ñaan bi et vous les militaires de l'Afrique libre on vous lance un appel solennel tout le peuple sénégalais ne pensez pas que Macky Sall est en paix si le peuple était en paix aujourd'hui le ministre de la communication n'allait pas faire une conférence j'ai appris même qu'il a fini par sur sa conférence de presse pourquoi réseau téléphonique Grand Dakar poste courant secteur massaliko Jinaan xam nga yeen ñu ngi tok ana ban presse ne woon naa presse bi ñepp encaisser ana presse ci poche kan mo len won lak lak gendarmerie mbaaw kan mo len ko won lak lak gendarmerie wakaam kan mo len ko won kan mo len ko won wax len ma réseau téléphonique bi door Grand Dakar kan mo len ko won tay bu ministre waxul won do len ko yek donc où est la presse la presse est-elle présente ou la presse a abandonné nee naa la bi ñu tëjee Sonko la ñu des kese si combat bi kese da ngay woo sax ñenn ñi ñu naan la waaye grand man bokkuma Pastef te man la man mii di wax ak yéen bokkuma Pastef Sonkis si laa te billahi xeex bi dina am fooy foo xam ne fu muy toll. eh gars yi te bon de waxoon naa leen ko de xol yi dina dagg xel yi wàññeeku nit ñi lu mu yàgg-yàgg di ñu gën a wàññeeku ñun kese si des te boo leen gëmee ne dañuy dem campagne dañuy dem campagne. boo leen gëmee dañuy dem élection dañuy dem élection am na politiciens nag yu ma yëg ne ñu ngi waaj a jël seen responsabilité jàpp ci combat bi ndax gis na ne maman yi booy yi sont très très très déterminés wanuñu leen dara ci internet mais ministres yi ñoom xam nañu fi réew mi toll Bokar Thiam nee na leen réew mi doxul ngaa <laughs> ñi xeex xeex da koy mën grand Ibou Fall jërëjëf noo <laughs> grand Ibou Fall jërëjëf Wow, wow, yow moom dama xam ne yow moom bu ñu amoon dix grand Ibou Fall ak ay neto ñoom Jiji kays grand tabax maam seen laal yoon non ak beneen gel bu am na ku nekk TikTok tam oh ku may xoromal xorom yi neex buñ ci amoon waa le missionnaire voilà waa si si si j'ai appris j'ai appris j'ai appris j'ai appris j'ai appris après yow nga live ko réfléchissez dem génne ji Sonko balaa ma def déclaration xam naa lu may wax récupérer Sonko yóbbu ko Ziguinchor balaa ma koy def déclaration am xam naa lu may wax moment bi mu ngi taal Ziguinchor ba pare tant que Ziguinchor tàkkul carrément ak gàmb du récupérer du libérer Sonko. pourtant vendredi la ko waroon bàyyi médecin yi di xaan-xaan yi tey nag Sonko jëlul sax perfusion tëdd la def tey kaw dëggu la def ba tëdd di julli kon xam ngeen ne yaa problème tey tey jabar ji dafa jooy xaccit te ay femmes yu dëgër lañ ay ibaadu lañ.

di ngeen gis ay meeru 80 ans wacc si tali bi ñu door leen mo ñu dé bil de li préparé jóg ni bu ñu jógee Sénégal Macky Sall di nga xamné Macky Sall Macky Sall do tal guerre nak Macky Sall sa deret la ñuy béré bala nga yegg litre yi yi ma soxla ma yegg ci ci yow ñu yegg ci ci yow ñun wa Casamance ñun wa Guinée Bissau amna sax ay kat yu joggé Fuuta ak fep ñëw rek pour Ousmane Sonko jërëjëf li mo lay won nit ko am barke la ndax ñepp a xam ne bii paa da ngeen ko toy Sonko d'accord nañu ñom nga genn duggu dekk yeb sauf Mali tek ko fan Sonko fu ko neex lay fadige jugee ko posé na no antidote c'est pas parce que France la koy jël c'est fu ko neex lay fadige fu ko neex code lay waxe bi pa nak ndax waaw gaay yi ne naan mbake yi ba pare dañuy toj wax ji signaler gauche droite man dam leen wax code pour nga xam ñeneen ñi am waaw lu ñu jabatoo <laughs> mooy loolu man aw ma wax ju bëri ji mënuma ko te ma commencé saaga ndey te waratuma nga xam waaye dañoo dàq ndey sama njaboot ci biti nokk nañ leen si biti ñoo xam ci combat laa nekk Sonko ci boppam man damaa d'accordoon man mii di wax ak yéen ça de la faim bi est-ce que ñuy jar nañ ko mais dama delluwaat Casamance ne leen docteur yi nee na docteur yi nee na docteur ñu ne ma ay mu yéen ñu ñu ñoo tiiree fetal nga naan ñu Sonko bu moo lekk laa la wax nañ ko bàyyi mu génn ñu jël si ko na clair rek ñun dañoo clair man liñ ma yóbbante laay wax bu doon manax man dama ko naan saa waay foog nga teggi grève de la faim bi daf may jaral comme samedi médecin yi forcé dóor dugal ko perfusion bàyyi force parce que ay médecin militaire lañ ay doomam mën nañ taxaw ay jabaram taxaw ñu perfuser ko pour mu récupérer waat mais là là Sonko tey affaire yi doxul parce que tey waxul tey mënut a wax tey moom affaire yi doxul tey ça ne marche pas tey booy bi kawate na te pourtant tey la médecin yi sóoroon bu jëlee perfusion tey suba ñu mën ko libérer mu dem gàllem ñu barricade ko kii jeex ñu jël ko léegi nag yaa problème tey moom yaa problème waaw tey moom dama ne woon man du ma mos a wax ci sant Sonko parce que Ziguinchor tam jéem naa leen convaincre ba sonn sama gars yi yéen tam jéem naa convaincre responsable yëpp ñu ne ma dal résistance la nekk il va aller jusqu'au bout ko dal dina sonn dina kawatee ñoom nag bu buñ ci sonnee mën nañ ko piquer ak lépp mais ñun dañuy xeex ci xeex lañ nekk ce n'est pas le moment de décrocher wane ay photo yaayam ak ñi ñu naan naka yaayam ñaan eh yaayam xoola waa Ziguinchor laa sant ñu barricade buntu këram journaliste yi ndaw ndawaan yi laaj leen amul télé ci poste seen télé internet dem nañ fa booy dàq leen maa joxe ordre boobu la maman ne pour recevoir personne ñun ci combat la nek amatul ay affaire di yaay ak papa may leen ñu rek gaay ngir ngir yalla yeen Dakar da ngeen bëri affaire rafetal gi gu defar gi les jeunes du ati ati yam luma leen wax rek ku forcé sax jéem a jël maire bi ati yam amul ay nor lañ joggé amul yen, xamanté ngeen seen biir bu kenn dugg ci kër gi amul presse ku leen wan carte presse ci bopam bu mu fa dugg On n'a pas besoin de sentiments actuellement. Nous allons mettre le film tout. Boy, nous nous chargeons de combattants maintenant. Faut que nous nous du sonko. Cheikh Barre, si nous nous yéchons, nous nous Si nous résistons, 2027, nous te maa leen ni ko waxaat ndox bu sedd bi ñu leen di këpp 2027 mooy Sonko sax day participer ci élection yi ñëppay bokk ci élection yi maa ngi wax di waxaat bu Macky Sall duggee ci guerre bi tooñ nañu Afrique yëpp ndax peuple Afrique yëpp mu ngi jóg bu ñu résister wulee ñun génnee ñoom ñi dof ñi gars yi nii dina am ñu si dee ci grève de la faim te armée bii ma gis wax naa leen ko de capitaine jëm kaw waxatuma ak ñoom ay góor jigéen nañ je ne parle pas avec des bouffons su ma waxee ñu naan ma war a wax si armée nationale. Sénégal armée maintien de l'ordre lay dem ak dem guerre bokkul maintien de l'ordre xam nga mooy lan dem taxawaalu bu ñaari nit ñi tax di xeex da nga ñëw àtte amoo droit tirer coup billahi vous n'avez rien compris maa ngi gis ñenn ñi di rêve naan l'armée sénégalaise Mali di def un million deux cent kilomètres carrés Sénégal cent soixante seize mille et quelque ngeen ne yéen revenons à la raison wàcc leen dem buntu ambassade France wàcc leen dem buntu hôpital principal dem buntu ambassade France bindal len non à la guerre dem buntu ambassade États-Unis bindal len non war. dem buntu hôpital principal ne len détenu politique yi dañuy guen neex nakari. foog ngeen xex. jàppale njabootu Sonko fep lañ len xoj ba ay soxnam la la wax carte bancaire nada comme bima dal Sénégal ma nit carte bancaire yi nada sa dom am moyen 16 ñak bak légui c'est logique Sénégal lañ nek parce que si régime bobu lañ tollu ni amatul yermande man xawma toj ñu ñoko wota man lima ci dal dam koy accepter kon ni accepter fiñ tollu vous avez mal ya trop de mort par crise cardiaque mais faut ñu accepter ko dañuy dem jusqu'au bout parce que dañuy gagner combat bi Sonko kenn mënu ko téré nek candidat kon c'est pas la peine de se lamenter di me pousse jusqu'à 2027 avertir naa leen Presque, presse bi dinañ à lamenter lamenté période de guerre wax naa leen lan mooy loi de guerre yi léegi ñun ñoo ci des yéen yaa leen ci des. xam naa ne am combattants combattant yi à fléchir j'accepte c'est très logique c'est très très très très logique mais Sénégal deux féetalee dëkk bi benn côté. Abbey xam le parking bi sous la cathédrale savons nañu armement bi fa Nous savons tout ce li fa mais pour des raisons de sécurité militaire maa ngi avertiraat armée sénégalaise yàlla seede na ma fii toog naa foo xam ne gis plan satellitaire bu poudrière Sénégal Mais mais y na yoo xam ama je vous avertis rek guerre bi engagée. lu bëri dinañ ko rëcc Sénégal lu bëri dinañ ko regretter te regret boobu balaa ñu say yegg ne population bi nag jóg rayante ñu ngi wax rek man benn rëccu rek laa si dul am na deretu Macky Sall tuuru ñu sangoo ko su boobaa ñi deew ak ñëpp ñu baal leen su boobaa xoola on passe à autre chose dañuy dem élection jàll ci leneen l'essentiel que Macky Sall meure dans le pouvoir l'essentiel qu'on égorge Macky Sall dans le pouvoir Moustapha Diakhaté il est à égorger dans le pouvoir Antoine Diome il est à égorger dans le pouvoir

foog fep tak gay yi jàpp de ñu ngi préparer wat ni affaire carrément affaire yaangi mat man moom kafuma caaxaanuma magal gi comme dañoo boycott ñu ni dañuy boycotter eh. ma nga gis ñu bari di ragal te waaw ma grand c'est la police 06 05 59 96 00 ñu nan ma c'est la police man sen police u ndey seen gendarmerie bay c'est la police damay astaghfirullah waaye